mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen jaajafal di leen baalu ak di leen baal ak di nuyu suñu mbokk yi ñu bàyyi xel di ñu suivre saa su nekk rek Euh, mbégte la ñuy am suñu waree jàkkaarloog yéen ci chaîne bi ngeen tànn seen bopp muy Dakar People euh, comme ni ñu koy defee toppal borom xam-xam yi tey nag ñëwaat nañ ne mooy parcelle euh, grand mara macha allah muy jàmbaar loolu xam-xam bi te sell mu jàng loolu ba xam ko muy Serigne Ahmed Khalifa Niass tey nag ñu fekk fi nga xamante ne mooy parcelle dañu waxtaan moom ci ay yu baree baree bari waaye Aïcha avant combat bi li nga xam mooy ci combat Modou Lo ak Siteu koy nuyu ba pare jox ko après ñu kóote li nga xamante ne mooy waxtaan bi sëñ bi ñu ngi lay nuyu alhamdulilah. Mm-hmm. alhamdulilah. Mm-hmm. wasalaatu wasalaam ala rasulillah. xawla mm-hmm. wala quwata illa billah. wa ma min nicmati fa min allah. wa tawfiqiya illa billah. mbokk yi seetaan eh, Dakar People fu ngeen man di nekk ak nu fa man di nekkee rek. maa ngi leen fay fekk. ak samay kàddu yu xeebu. ak sama jëmm ju xewu di leen nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di leen ñaanal jàmm mais di koy sàkku ci yéen. ñeen mm-hmm. dellusiwaat seen kër incha allah ñu fas yéene ànd ak yéen. lépp lu ñu yàlla may ci temps. Mm-hmm. lépp lu ñu yàlla may ci man ñi mën tontu seeni i laaj incha allah ñu ànd seen i bisimilah. Mm-hmm. Aïcha macha allah noonu la nuyoo moom Serigne Ahmed Khalifa Niass euh, sëñ bi Aïcha avant combat Modou Lo ak ki nga xamante ni mooy Siteu am na lu mu waxoon que ne Modou dañuy dem xooli li sëñ euh, Ahmed Khalifa Niass xoon après ñu desuwaat ci waxtaan bi. sëñ bi sa seet bu doy bi nga xam ne dañ koy def di ci seetal jàmm yàlla di ci seetal askan bi te defe naa ne képp koo seetal macha allah résultat ngay daal di am combat laa bëggoon nga seetluñu ko en direct kan mooy daal waaw Moussa. Mhm. xam naa ne topp nga ma ba ca miir ba. Mhm. li tax mooy. Mhm. boobu ba léegi yaa ngi bëgg ma wax la jox la résultat yi kuy daan. waaye dinaa la ko may. fi ma koy jaarale nag mooy ci seet bii nga xam ne mooy seetu Ramli. allahu akbar. nga ne ki war a bari nu mu tudd. Siteu ak Modou Lo. topp nga ma daal. Uh-huh. Uh-huh. la ilaha illallah. combat Modou Lo Siteu c'est en direct. sëñ bi incha allah dinañu wax combat bi kan mooy daan. ah. Moussa. lambu di Modou roi bi fu mu nekk. roi des arènes bi fu mu nekk. parcelle. gisaguma mu jugee parcelle. ah. ci seet. laa ilaaha illallaah sëñ bi maanaam Modou Lo mooy. li ma yàlla wan ci seet. mooy roi bi gisaguma mu jugee parcelle. loolu nag wax ju yegg dafa ko moom. loolu bu ma ko waxee mooy Modou Lo moom moom moom combat bi. allahu victoire bi mi ngi ci loxoom. sëñ bi yaa ngi suuraale VAR ba. sa waay. Moussa. quatre ans ngi nii maa ci internet. dëgg kuy wax loo teg sa naf su bakkan yaay dam VAR. allahu li ma wax fii laa ko teg mooy ci seetu Ramli gi. Hmm. mooy Mm-hmm. Modou Lo. dina daan Siteu dina daan Siteu. laa ilaaha illallaah waaw. loolu nag moom topp nga ma ba ca miir ba. Mm-hmm. xam naa ne yenn ci samay taalibe buñ ko gisee. Mm-hmm. dinañ xaw kii waaye na maa ngi leen siy jéggalu. waaw. ayca gis ngeen noonu loolu la sëñ bi waxoon euh, ne combat Modou Lo ak Siteu Modou Lo daanoogul léegi sëñ bi euh, ba ngay wax ci combat Modou Lo ak Siteu ne Modou Lo daanoogul léegi fan nga ko tegoon. waaw Aïssa euh, Aya. falilaa alhamdu maa ngi leen di bu baax. kenn ku ci nekk ci turam. wax dëgg yàlla yàlla mooy maye. yenn saa ma toog na dégg koo xam ne def naan lii xew suba yàlla rek a ko xam. Mm-hmm. te yàlla moo ne ñu. Mm-hmm. wa indahu mafatihul ghaybi laa ya'lamu illaa huwa. dëgg la yàlla ci boppam moo wax jaam bi ko ragal ne wa wattaqullaaha wa yu'allimuka la heure boo ma ragalee man yow yow yow jaam bi. Mm-hmm. heure boo ma ragalee. dinaa la xamal loo xam ne mosoo koo xam. dëgg boo ma ragalee. dinaa la xamal loo xam ne lépp lu war a xew la. ci barkeb ragal gi nga ma ragal. Mhm. dinaa la ko xamal. Mhm. kon yen saa ma toog dégg koo xam ne daf naan ay ay lu war a xew suba yàllaa ko xam. noonu loolu loolu c'est faux. Mhm. am na ñoo xam ne ñi wax koog ñu ñàkk koo wax. mais lépp lu war a xew. bi xawlilaay waxuuti yàlla de danañ koy xamal. man nag ca ñooñu laa bokk. dëgg la man li may gis. làmb moo ci gën a ndaw nee naa la. dëgg la lii wane nii sax du xam-xam. <laughs> xam-xam. du kii mooy daan mu daan mu daan. du mhm. du du lii moo war a am mu am mu am xam-xam xam nga mooy lan. Mhm. mooy nit ku ñëw ak soxla. ñëw ak yaakaar. Mhm. ñëw ak bëgg-bëgg. nga jaayante yàlla ba soxla bi tax mi ñëw ci moom mu faju loolu mooy sëriñ loolu mooy yaakaar. waaye lii nag ah, keroog bi ma koy wax dafa am sama benn waay bu fi ñëwoon. booba defee naa ne affaire yi des na juróomi fan. ndeysaan mu insister rek di ma ciy laaj. dëgg la <laughs> ndeysaan. ci noonu rek laa xëccee sama seetu ramli gi ne ah, kan moo yor roi des arènes bi mhm. mu ne ma Modou Lo ma ne ko roi bi jugee gut ci loxoom. dëgg la. mu ne bëri sëñ bi est-ce ma dugal ko ma ne ko fu neex dugal ko. dëgg la. gis nga. Mhm. ku kuy dem vaar. Mhm. mooy kuy wax li ngay wax nga teg ko sa naf sa bakkan. dëgg la waaye képp koo xam ne yàlla moo lay xamal ngay wax. doo mos a dem vaar. ah internet na nekkaguma ci gan. li tax mooy mooy quatre ans maa ngi ci. Mhm. amul benn vidéo boo xam ne nee nañ Ahmed Khalifa kan lay yóbbu vaar. Mhm. man làmb sax kanaa waajee ma ci insi waaye man làmb du ma ciy ñaan. Mhm. ñu bari nag dañ may woo soxla ma ci mais làmb ñaanu ma ci. loolu moom lu ma jaayante lu ma ñaan la ba ba ba ñi tere ma ko bàyyi naa ko. waaye gis nga soxna si. gis nga seet gii nga gis muy ramli gi. ndeysaan muy ramli gi lii lépp lu ma ci bëgg a xam bi xawlilaay wa quwati hmm. moo xam ci doomu aadama bi hmm. moo xam ci réew mi hmm. lépp lu ma ci bëgg a xam bu ma bu ma tombee ram gi fii yàlla daf ma koy xamal lii na nit nekk ci ay jafe-jafe na nekk ci gàllankoor na tëju ba manta am dara lu yaakaar mu tas yàlla xam ne ne bi xawlilaay waquuti bu ma jotee turam ak turu yaam ak ay atam mhm. dinaa ko wax loo xam ne kenn du ko di te problème bi mooy seet gi dafay génn solution solution du dara lu dul ay sarax dëgg la de mhm. yoo xam ne moo gën a leer moo gën a gaaw moo gën a moo gën a efficace mhm. parce que nit ñi dafa ñoo xam ne seen i mbir boo leen jaarale ci sarax seen i mbir dox dëgg la kon nañ fonk seet mm-hmm. nañ gëm seet mm-hmm. ndaw lu bëgg yegg fa nga jëm mm-hmm. na nga fonk seet fonk ñaan man nag ni ma koy faral di waxee waxuma kenn ñëwal ci man man sama liggéey bopp rek daf maa doy sëkk waaye nag yàlla xamal na ma ne yàlla def na ci man loo xam ne képp ku dugg foo man di dugg sa sa sa soxla fajuwut bu la yàlla dimbalee bu la yàlla wërsëgalee bu la yàlla xéewalalee ba nga jëflante ak man bi xawlilaahi wa quwwati sa soxla dana faj loolu moom kenn mënu ci dara lu yàlla def ci man la mm. ca maa tayam ga wa annal fadla bi yadillah yuti man yasha barkeb Cheikhu Tidiane yàllaa dogal guddi yii mm-hmm. lépp lu ma ñaan yàlla dogal te gis nga ñaan nag mënoo mm-hmm. koo man lu dul dangaa maîtriser seet nañ waxante dëgg <laughs> dëgg la de <laughs> faj aajo mënoo koo def lu dul dangaa maîtriser seet mm-hmm. faj aajo mënoo koo def lu dul dangaa maîtriser ilmu nujum faj aajo mënoo koo def lu dul dangaa xam taxawaayu biddiwu doomu aadama dëgg la faj aajo mënu ko mënoo ko def loolu da ngaa xam raw xaanu nit ki. Mm. yan sarax la méngoo nga def. loolu kum nekkul ci yow doo sëriñ. Mm-hmm. sëriñ bu la ëpp résultat ci ñaan yàlla. Mm-hmm. daf laa dàq seet. waaw ah, waaw dëgg la de. parce que fii nag mooy buntab seet wa aatul buyu tamit fii moy buntab ñaan wa aatul buyu tamit ab waa biha mm-hmm. li may faral di wax daal képp ku bëggul ma gis la ci seet bu ma woo. <laughs> képp ku am looy nëbbu ba ñi wax la ko wala nga jàpp ne lii buñ la ko waxee sa àdduna tukki wala say ba say mbokk. Mm-hmm. bu ma seetloo. li may seetee yombul. Mm-hmm. waaye ku yàlla dogal. Mm-hmm. sa soxla nar a faju. mën naa yomb ci yow. dëgg la soxna si. gis nga nañ bàyyi naxante ji faaw ñu wax nit ñi li fi nekk. faaw ñu wax nit ñi réalité bi nga xam ne moo nekk ci mbiram ñaan yàlla mbiram ñaan yàlla ne li ci nekk du dara lu dut mm-hmm. Mm-hmm. lu dut mm-hmm. bàyyi naxante bi bàyyi tappale bi bàyyi utam bës bi dëgg bari na fi <laughs> nan ngay waxee ne ab sëriñ nga ñi am ñu la yaakaar nga wax ngay lambar lambari topp ay mbër di lambar lambari nañ waxante dëgg. dëgg la de topp ay musiciens di lambar lambari. Mm-hmm. topp ay politiciens di lambar lambari. Mm-hmm. man li yàlla daf ci man moo gën a cher man kaamilu alxuraan la ma yàlla jox. mu nekk sama dënn bi. <laughs> moo yor tur yoo xam ne tur yàlla yoo xam ne. Mm-hmm. yàlla moo nañu qul addu allaha aw addu rahmaanu ayyan maa tad'u fa lahu asmaul husna bu ngeen bëggee yéen jaami lu ngeen ñaan man nangul leen ko. dee leen may jaare ci dee leen koy jaare ci sama tur yi. yàlla am juróom-ñeent fukki tur. ak Mm-hmm. dëgg la man dinaa xam lu nekk ci man ba pare. Mm-hmm. ginnaaw ba ma bokkee ci maam El Hadj Abdoulaye Niass. Mm-hmm. ah muy famille bu baax ma koy sante yàlla. ma xam li nekk ci man. kaamilu alquran bii. bu ma neexee mën naa koo tarif yi ci lu matu ñeenti waxtu. macha allah. kon sëriñ si ñenn ñi nañ am dignité seen bopp. xaw ma ay sëriñ leen xaw ay courtier lañ. <laughs> nañ am dignité seen bopp xam ne li yàlla def ci ñoom moo ëpp doole ñiy lambar lambari ci ginnaaw doomu aadama mhm. man du ma du ma du ma dem du ma dem topp kenn moom dëgg la moom garaat boo man di am mhm. boo ne ma kar yaa ma soxla yaay ñëw fi ma nekk fekk ma fi boo man mante ñëw nga wax li nga wax ci téléphone mhm. la ma ci man ma def ko ci yàlla faj saa jeex soxna si gis nga seet bii ngay gis uh-huh. seetu seetu ndox la aussi ndox bi waaw uh-huh. man dafa am ñetti seet yu may liggéey yoo xam ne benn bokkut ak moromam ginnaaw bu ma jógee ci seetu seetu suuf bii suuf bi waaw parce que suuf la ñuy bind ëllëg ci suuf la ñuy la la la ñuy def uh-huh. moo tax yàlla ne bu ngeen di dox ci suuf yéen jaami garaat bu ngeen mën di am moo xam ministre nga moo xam président nga moo xam euh, député nga garaat boo mën di am booy dox ci suuf dellu wàcc ci sa boppu dëgg la dëgg la Mm-hmm. wala tamshi fil ardi marahan innaka lan taxriqal arda walan tabluqal jibaala tuulan mënoo bonde ba ba ba sut montagne yi bonde ba sut étage yi kon booy dox ci suuf del xormaal suuf seetu ndox bi mm-hmm. mbaa yëg nga lu yàlla bind mm-hmm. loola dafay soxla ndox seet bii moom itamit dama fiy jaaral doomu aadama bi. xam turam xam turiyaam xam ay xam ay atam. Mm-hmm. jaar fi wax la may wax jat li may jat bi aw li laay waxuti moo xam wax ko ci àddunaam loo xam dat seet nag soxna si ñetti mbir la. dëgg mm-hmm. nit ki lim toll. Mm-hmm. tey yow li ngay dund jamono jii. ku la ko wax xam nga ku la ko waxut xam nga. dëgg la dëgg li nga passé. ku la ko wax xam nga ku la ko waxut xam nga mais paral bi mooy lii ñëw ci yow. bu dee gàllankoor la mhm. seet gi da koy wane wane lan moo koy fànq mhm. bu dee xéewal gu war a ñëw la mhm. seet gi da koy wane wane lan mooy yan sarax mooy xëcc ci xéewal gi seet ñetti mbir yooyu képp la lu nit ki toll lim ak lii ñëw dëgg la loola nag dama koy décortiquer ci seet bi du fi nekk naan la kii nangam ak <laughs> kii nangam ak ñun duñ tas diggante duñ duñ yàq mbokk dëgg waaye nag luy waay di am bu bëgg luy waay di nëbbu boo ñëwee ñi jaara yow fii. Mhm. danañ la ko leeralal. dëgg la waaw. ay ayca am na solo macha allah di leen fàttali tey ñu ngi seet si Serigne Ahmed Khalifa Niass fekk si ko fi nga xamante ne mooy parcelle euh, comme ni ñu koy defee moom la ginnaaw seetu gi seetu ndox bi sëñ bi euh, tey gis nañ tamit tey fi mu toll nii euh, pom yi nga xamante ne teg nga ko pom yi tamit def naa ci wàllum noob la. waaw lii moom falilaa alhamdu defe naa ne sama communication di ci changé li tax mooy. <laughs> Uh-huh. maa ngi ciy dimbale ay doomi aadama fuñ man di nekk ci réew mi. ndeysaan guddi yi ñu toll. Mhm. bari na ku neexoo ak jëkkëram. Mhm. ci kattanu yàlla. fii laa jaar ak moom. ndeysaan guddi yi ñu toll. Mhm. bari na ku defoon ci jigéen alal yu baree baree bare am ci moom am ci moom yërmaande. am ci moom mébét boo xam ne da nga bëgg mu doon ca soxna. dëgg jigéen ja xëy walla ginnaaw. fii laa jaar ak moom ba mu dellusiwaat ci ay loxo. macha allah. bëri na ku nekkoon ci entreprise. Mm-hmm. kenn bëggut ko. Mm-hmm. kenn jubluwut ko. Mm-hmm. kenn sopput ko. kenn naw nawlawut ko. fii laa jaar ak moom léegi la ñuy lépp lu ñuy la ñuy santaane foofa. moom lañ ciy jiital. bëri na ku doon liggéey ak ak tubaab. tubaab bu joxu la bopp lijjantewul la. bi xam ne nga ur nga dugg fu ne ci wàllu nopp. dëgg amoo ci résultat fii laa jaar ak moom. ndeysaan. macha allah yàlla suturaal ma ci kattanal ma ci. bala nga bëggoon yàlla def. soxna si dama ne nopp. boole ay nit. Mhm. dëgg la du ma ne maa ko fi dàq. waaye de képp koo dégg mu toog moo xam sëriñ la ak ku man di doon. Mhm. naan maa fi dàq nangam maa fi dàq nangam. Mhm. boo ko ñemee ne ko li ngay wax amul. parce que wa fawqa kulli zi ilmin alim. ndeysaan macha allah. soxna si. lii li ma ci am ci ay résultat lii nga gis ni ñeent la. ñeent la ñeenti pom yoo xam ne bi xawli laay waxati liggéeyu boppam la boo xam ne benn bu ci nekk ak ak ak noobu boppam. man caaxaanuma damay liggéey. dëgg la li tax mooy lii ma nekk. ki mm. la may yàlla teral. dëgg la samay oto yi ma yor. Mm-hmm. ci barkeem ñaan yàlla la ma ko yàlla jox. dëgg gi may jo ma yor. Mm-hmm. ci barkeem ñaan yàlla la ma ko yàlla jox kon du ma du ma caaxaane ñaan. dëgg la du ma ko sàggane. Mm-hmm. soxla bu ñëw. ki ma jox dërëm ak ki ma jox un million laa yemale képp. soxla moom soxla képp. waaw soxla soxla la de. <laughs> kon nañ dimbali nit ñi ci wàllu noob. wëral fu nekk ci wàllu noob mënoo ci am résultat. na la yàlla suturaal. ba nga jëflante ak man nga xool. Mm-hmm. nopp bi nag bu ñu liggéeyee li ñuy liggéey ba pare dañuy xotti nopp bi euh, def ci téere bi. jël jël pomme bi suul ko. Mm-hmm. bu ñu suulee pomme bi ba pare. Mm-hmm. dafa am benn tur boo xam ne dañ koy téye ñetti fan. tur boobu nag mooy mooy mooy mooy efficace. mooy efficace waaw. dafa am ñetti mbir yoo xam ne sëriñ bu la ci ëpp résultat. sëriñ bu la dàq wérdo moo la ci ëpp résultat. dëgg bi si njëkk mooy wàllu nopp. sëriñ bu la gën a ñeme jotaayu kurus. di wirdo mhm. moo la ci ëpp résultat beneen bi mooy wàllu nopp mhm. sëriñ bu la gën a ñeme jotaayu kurus mhm. gën laa ñeme wirdo moo la ci ëpp résultat dëgg la dëgg la fu nekk jàppaleel sa jëkkër mu xëy am lu nekk bëgg laa wan ginnaaw di lambar lambari ci ay jigéen bi xam li lay wax na la yàlla dimbale ba nga jot ma téléphone lépp na dama koy teg ci tax eh, ci ci ci ci kattanul yàlla wala taqulanna li shay'in mm-hmm. inni faa'ilu dhalika qada ila an yasha allah mm-hmm. jaam bu doyadi laa jaam bu jaam bu ñàkk solo laa mm-hmm. waaye nag foo ma fekk maa ngi sant yàlla te yàlla na xéewal gi may defal mm-hmm. mooy soxla bu ñëw ci man faju dinaa ko ci sant dëgg la kum déranger maa ngi jégalu <laughs> ndeysaan waaw maa bi neex ma rabbika faadis ndeysaan waaw ay allah mi ngi noonu Serigne Ahmed euh, Khalifa Niass euh, noobu pom gaa ngi noonu macha allah résultat bu baax a baax la efficace na te gaaw na euh, noob bi danga koy coupé rek leen lim ciy def nag moom a yëfam la ñu jaajëfalaat ko bu baax góoro gi mm-hmm. dafa am ñoo xam ne seeni mbir. Mhm. parce que bari na ñuy woote woo sëriñ ñoo gën a dugal nañu ci guut. li tax mooy. Mhm. am na si ñoo xam ne soxna si. Mhm. yàlla xam na ne deret heure buñ tuuree deret guddi yooyu dootuñ tàqalikoo ak jafe-jafe. Hmm. am na ñoo xam ne heure bu ñu rayee rek wala heure bu ñu leen rayloo rek. buñ ko defee rek pare nañ ci am jàmm. li tax mooy dootuñ am jàmm par problème bi mooy seen raw rawxaan ci bopp moo bëgg moo bëgg deret. mais yenn saa yi am na ñoo xam ne. Mhm. deret ji seen rawxaan bañ. Mhm. noonu lay nangoo guro. Mhm. am na ñoo xam ne taxawaayu taxawaayu guro taxawaayu deret ci ñoom. mën na soppali ko doon guro. léegi loolu nag sëriñ bu pour nga sëriñ xam ko faaw mën a seet. <laughs> waaye yow koo seetal. wala koo làmbatul ba daj ko rek ne ko waroo tuur deret. wala tuural deret man am na ñoo xam ne dañ ma fi woo sëñ bi man kat man li ma jaaxal mooy. Mhm. man damaa def ci damaa def ci damaa def ci sarax loo xam ne. Mhm. mosuma cee gis résultat. waaw <laughs> ndeysaan. barki démb dafa am soxna si fi ñëw. Mhm. bi mu ñëwee di ma génneel ma téléphone am. ku ne mu wan ma ci sëriñ si. ndeysaan man ko gis nga soxna si nag man loo may loo may defal ne amulu ma benn njëriñ. sëriñ si yi nga may wan sa téléphone ku ne nga naan ma jaar na jaar nga ci ñoom. Mhm. ma njariñ mhm. li am solo mooy ñëw nga ba sama kër. wax ma sa soxla. Mhm. ma ñaan ko yàlla yàlla def ko. démb la moo naan ma man kañ li may rëccu mooy li tax ma yéex a jëflante ak yow man gis nga soxna dafa am loo xam ne. dafa am loo xam ne don dafa am loo xam ne dafa nekk ci sama deret. mooy lan mooy man man dañ ma ngéntee xaalisu ñaan yàlla. ndeysaan macha allah. <laughs> te olof Ndiaye def na loo doon rek mu dëgër. dëgg la man dañ ma ngénte dëkk bee naqadee wax rek. <laughs> walaay waaye ñun suñ bàyyi suñ maam yi suñ maamata luñ luñ def ci ñaan yàlla ci réew mi. ndeysaan loolu loolu ëpp naa wax. dëgg la. waaye nag ñu ngi sant yàlla gis nga guro gi daal. kuñ seetal ba nga xam ne waroo génnee waroo waroo tur deret mhm. buñ la te buñ la buñ la waxee sarax yu guru mhm. boo ko defee say mbir di dox mhm. soxna si sarax mooy lépp dëgg la waaw sarax mooy lépp te doomu aadama lépp lu ñuy dugg nañ di koy xool di xam sarax di koy def say yu bëri yaa ngi koy gis muy am jafe-jafe la ku bëri yaa ngi koy gis mu dugg ci palace bu dugg si njaay toog tuuti daanu daf koo seetut dafa am mbir yoo xam ne ala kulli xaalin boo ci dugg da koy seet. Mm. jabar dañ koy seet. jëkkër dañ koy seet. Mm-hmm. place dañ koy seet. Mm-hmm. yoon dañ koy seet. amaana ku dem bitim réew gii. Mm-hmm. nekk fa ay ati at mënta am dërëm. kooku tukki di ay mbiram. te seetu seetu luñ ko yoon wala ku mën a seet seetulu ko. amaana ku ubbi place xëy ubbi place jëndi ay bagage teg. xëy daanu. fekk ba muy tijji place nam sonnee ca place nam sonnee ca xaalis ba. nam sonnee ca place ba sonneewu ko ci seet sonneewu ko ci ñaan. ndeysaan. bëri na ku xëy takk jabar mhm. ah, fa tabaarakallaahu jafe-jafe yi tàmbali fekk seet seetu ko kon nañ fonk seet mhm. fonk sarax mhm. fonk ñanlu yàlla defar suñu àddu ah ku koy fonk léegi ñu soli la. Ah, <laughs> damay des ci guro gi ndax sëñ bi guro gi dafa am guro mm. gu weex gi tamit. moom ñoom ñaar yëpp boo xoolee seen position ñooy ànd. ñoom ñaar waaw uh-huh. àndee nag fa uh-huh. tabaarakallaaw dafay uh-huh. taxaw taxawaayu deret. waaw bëri koo xam ne tey wartu tuur deret. bu ko waxee guro gi bu ko defee da ay mbiram dox. ay ca macha allah am na solo bëri ñoo xam ne waruñoo tuur deret bu leen joxee guro gi rek seen aajo dina faju sëñ bi bu ñu li mooy wàllum rab. Mm. rab moom bari na ci réew mi te sonal na doomu aadama yi. Mm. Mm-hmm. waa rab moom <laughs> li ma ci daan wax rek. man sama pap mm-hmm. Serigne Maam As ci mm-hmm. Kaffrine. defe naa ne ñëpp xam nañ. kon li mel ci wàllu rab. dëgg man du ma toog ay écran tim ma mooy tudd bàyyi jàmbur. ndeysaan ndeysaan. parce que nag koo fi tudd bàyyam day foog ne leneen la. dëgg la man sama bàyyi lay tudd. ndeysaan. li tax mooy li ma jombal ci mbiram faj. man moo moo moo ko teg sama bët. kooku soxna si da ngay dem këram. Mhm. foog ne fii xew moo fi xew. Ah, dafa am lu fi xew chaque jour na ala kulli haalin. heure bu nekk. Mhm. nit ñaa ngi jaaxle seen i jafe-jafe. Mhm. ñi ngay gis ngay toog di gis koo xam ne dafa daanu dafa daanu rab. ñu ko indi. kooku li muy def ci wàllu rab. biñ mujjee calcul ñim mu faj ci wàllu rab mi ngi toll ci ñeenti téeméer ak nangam. allahu akbar macha allah. Hmm? kon buñ ne rab. ñin lépp lu ñuy wax ci rab. Mhm. wala lépp lu ñuy wax ci mbiram faj. Mhm. luñ xam la luñ maîtriser. dëgg la jigéen ju rab sonal. Mhm. ba yow mënoo dégg alxayri. dëgg la. nga toog di mer rek kenn du la def dara. bari na fi de <laughs> ndeysaan. képp wax ak yow. ba nga am ci moom confiance. moo am ci moom yow confiance. yow daal da ngay xëy rek gis mu wan la ginnaaw. na la yàlla dogal ba nga set si ma. dëgg la. koo xam ne yow sa loxo lu ci ne dem. mel ni ngelaw rek. kon ne poos <laughs> ndeysaan. <laughs> na la yàlla suturaal na la yàlla dogal ba nga jëflante ak man. Uh-huh. soxna si ñun ñun ñun dañoo maîtriser ñaan yàlla. ndeysaan waaw. Mhm. Mhm. ay ca li ma leen waxoon sànq rek jàmbaar la ci wàllum seet waaye jàmbaar la ci wàllum ñaan yàlla euh, muy Serigne Ahmed Khalifa Niass nekk fi nga xamante ne mooy parcelle nee naa la numéro téléphone bi dañ ko def ci suufu écran bi incha allah ku ko bëgg a jot rek boo ko wee di nga ko jot nee la ak foo mën a nekk rek euh, boo ñëwee ci moom sa aajo dina faju sëñ bi bu jógee ci dañu ñëw ci li mooy wàllum kayit. Mhm. gis nañ léegi visa yi am na problème kayit yi nit ñi bëgg nañoo dem mais pour ñu dem mooy problème bi. waaw alhamdulilah am na sarax yoo xam ne ci wàllu tukki képp koo ko defloo. Mhm. bu ko defee tukki. Mhm. beneen bi passeport bu man di doon. Mhm. man bu ma ko téyee ñetti fan daf ca la may def borom dana tukki. macha allah te tukki mu gaaw gaaw a gaaw lay am. passeport passeport doomu aadama bu ma téye. ak foo man di dem ci réew yi foo bëgg mën a dem. bu ma ko téye ñetti fan daf ca la may def. bi laa waxoon da nga tukki. kenn mënu ci dara ku ne bitim réew mënoo am kayit mhm. bi xawlilaay waqati buñ déggooyee jëflante bi xawlilaay waqati ma liggéeyal li may liggéey ci turu yàlla mhm. da nga am kayit ndeysaan dafa am yoo ne bëgguma cee insister li tax mooy wax ji da cee bari mooy lii demee ni wàllu wàllu kayit mhm. ko gis ci internet bi muy lambar lambari da ngay dégg mu ne kayit maa ci ay jaaro maa ci ay affaire ngóor a maa ci ay moo tax man yooyu bëgguma di ci commune li may bëgg mooy ku yàlla nattu rek ku yàlla nara nar a dimbale rek. Mhm. mooy am sama ñett yooyu. dëgg la dëgg la. moo tax yow moom damay bàyyi yenn xale yi ci mhm. internet bi mhm. ñi ciy communiquer <laughs> ndeysaan waaw ay ca macha allah ñu ñëw ci wàllum euh, li nga xamante ne mooy bayre ndax nit ki mënoo am bayre te amoo kaaraange waaw soxna si xam nga ndaw ñi nag ñu ci bari léegi dañoo jublu euh, bayre koo wax mu ne bayre koo wax mu ne bayre <laughs> moo jafe-jafe yi nga gis yëpp ci réew mi ñàkk kaaraange moo ko waral doomu adama da nga war a am kaaraange surtout da nga war a am kaaraanga ba samp mm-hmm, mm-hmm. ba samp mm-hmm. ba wóor na ne yow tënga nga doog wax wax waxi wax waxi bay rek mayoo nettali rek foo toog ci sëriñ dafal ma bayre dafal ma luy indi wërsëg kaaraange ma booluyuñ ko sax seen programme mais man sama ni muy doxee du jox nit ki luy indi wërsëg te joxuma ko kaaraange du ma jox nit ki luy luy joxe bayre te joxuma ko kaaraange mm-hmm. parce que ñaar yooyu boo ko ci jox mm-hmm. àndut ak kaaraange fa tabaaraka la ak loraange képp la koy jural ndeysaan waaw uh-huh. mm. ay ca mi ngi noonu sëñ bi ñu tënk rek ndax amoo temps te a am ñoo xam ne ñu ngi lay xaar wàllum ndoxu siti bu ñu ko tënkee hémorroïde ak ballonnement ak lépp loo xam ne rek maanaam mi ngi ci doom doomu aadama te bëgg mu faju di koy gàllankoor fa tabaarakallaahu soxna si ñun suñu maam alaaji Abdoulaye Niass mm-hmm. lépp luy jàngoro wala lépp luy gàncax goo xam ne dafay jëriñ doomu aadama bi mhm. yàlla xamaloon na ko ban aaya lay ànd ak xamaloon na ko feebar bii mhm. garab gii ngay ut mhm. mu ànd ak aaya nangam nga def ko ak saafara mu doomu aadama saafara moo xam ku yor ndoxu siti la moo xam ku yor hémorroïde la moo xam ku yor néew kàttan la xeet yooyu yëpp fa tabaarakallaahu kum dal bañ xool ko ba pare pour dugg ci. Mhm. wala ba dugg ci. Mhm. bi Ablaye waxoon da nga tàqali ko ak moom. ndeysaan waaw. Mhm. Mm. ayca am na solo feebar yaa ngi noonu nee naa la boo ñëwee ci sëriñ Ahmed Khalifa Niass euh, lépp loo xam ne gàllankoor la tamit sa boo ñëwee ci moom mu saafara sëñ bi noo gisee réew mi. waaw réew mi de fa tabaarakallaa jaxasoo na. metti na. waaye nag lépp rek nañ sant yàlla. sant yàlla mooy régime bi fi nekkoon dem nañ. régime bi ñëw fi nii. lépp luñ laajoon askan wi askan wi jox nañ leen ko jox nañ leen dëkk bi mm-hmm. mooy jox nañ leen ñi jiite dëkk bi ci mm-hmm. wàllu présidentiel mm-hmm. beneen bi jox nañ leen assemblée nationale bi léegi ñoom ñoo deseel askan wi mais askan wi deseele tuñ leen dara mooy lan mooy nañ futteeku liggéey taba wax ji dëkk bi moom wax amatu fi wàll li fi am wàll mooy focus liggéey <laughs> parce que ñi fi ne nii nag wax dëgg yàlla doomu aadama yi dese lutuñ leen dara lépp luñ laajoon doomu aadama yi jox nañ leen ko kon nañ la luta liggéey mm-hmm. waaw ay ci na solo kon nañ la luta liggéey sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal euh, di wax euh, jërëjëf kontaan nañ ndax temps sax amut mm-hmm. waaye tamit jël nañ ci yenn ay quelque temps waxtaan ak yow ndax yow sa wax dañ koy yàkkamte ndax day am solo ci réew ñu kontaanee la bu baax a baax jaajëfal waaw ñoo gën a kontaan yal na yàlla def jàmm mm-hmm. yéen itam yàlla sàmmu leen gën leen a xaar ci seen liggéey yàlla dafa leen kaaraange gim dafa leen yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan allahumma amin dafa tabaarakallaa fii moom seen kër la heure bu ngeen fi ñëwee rek dañ leen ubbil porte yëpp dëgg la fa tabaarakallaa yenn saa yi nit woo ma sëñ bi damaa bëgg a ñëw waxtaan ak yow waaye man nekkul fépp laay génn nekkul parce que man <laughs> sama liggéey bopp daf ma doy sëkk dëgg la waaye nag maa ngi ñaan ci yàlla mhm. képp kuy seetaan Dakar People mhm. yan na la yàlla defal faj waajo allahumma amin képp ku am soxla mhm. mënoo ñëw ci man amoo loo ñëwee ci man mhm. seetaanal émission bi yéene sa aajo yàlla faj ko. macha allah macha nag nekkul ñëpp koy wax. dëgg ñëpp koy ma ko teg nag mooy. Mhm. barke ismulaay laxsam yi may liggéey barkeb turi yàlla yi may liggéey. Mhm, képp ku amul loo ñëwee ci man amoo dërëm. wër nga ci sëriñ si ba sa xaalis jeex. jàpp nga ne sëriñ amatut. dëgg mënoo ñëw ci man parce que man sama ñaan dafa am yoon. Mhm. dafa am lum laaj. dëgg la te dama koy teg ci yoon. bu dee yow amoo dara. Mhm. ubbil Dakar people. Mhm. seetaan Ahmed Khalifa Niass. yéene sa sa soxla. yéene sa aajo. yéene sa bëgg-bëgg bi xawlilaahi wa quwwati yàlla faj ko maa ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ayca waaleykum salaam wa rahmatullah ñu jaajëfal ko moom Serigne Ahmed Khalifa Niass tey nag ñu seet si woon ko fi nga xamante ni mooy parcelle ndax li mu wax rek gis ko sax yombul waaye ñun moom comme li wax rek ñun la ñu bokk waaye moom ci ñun la bokk ñu jaajëfal ko kontaanee ko seet gaa ngi noonu nee la boo ñëwee coom incha la seetal wax la say sarax defal ay ñaan seetu noob gi tamit mi ngi fi euh, li nga xamante ne mooy gura gi aussi tamit mi ngi fi seetu suuf bi mi ngi fi noob gi nga xamante mooy efficace ta gaaw incha allah ñu rabbi bu ñëwee bu ci moom mu jaaj mu defal la lépp loo xam ne lu leer la ñu kontaanee ko jaajëfal ko jëpp jox ñëpp dig daje ba beneen yoon euh, ci beneen émission jërë ngeen jëf